mais boy yow oh, tay nga calmé wu ba du max défaite bi mo la japp boy boy ay eh, gaynde lañ dé def la liñ mën mais xam nga compétition mo démé non bis du lolu sax moma décourager lo bien vrai que ni ci la bok nag mais tay dama recevoir wax juma jaxal bo xamanteni ci jëlé na ma kaw torop hmm? wax du mel nan ay xalé jigen dal ñoo fi ñew kéro barki demb waaw di wax ne sama jabar lesbienne la xam nga taxawaalu du jigéen lay jige jigéen lay doxaan xam di wax ci moom ay qualité yu ñaaw yoo xamante ni si franchement parler daf ma bett quoi. gannaaw lenn de moo ñu fi indi woon tey macha allah ñu gis ne daal yow ku baax nga ku am yar ku am teggin moo tax tey daal ma ànd ak sama copine bi. ñew seet ci la dëgg la sax moy da nga nek cool gaay gaay bu poursuivre poursuivre iya, wa poursuivre léegi iya, ñu gis la ni ngay iya, def ya. ak yoy te yalla dafa ne ak dëkkandoo dafa am dëgg la xam nga eh, yalla dafa am lu mu wax ci dëkkandoo nee na boo gisee luy dal sa moroomu julit te ñëwoo eggé ko kat yalla dina la bindal bakkar te dañoo am lu ñu gis nag luy dugg ci kër gi lu ndaw li gaz bu ndaw bi. nga ma xees le rek. waaw waaw waaw. xottu gaz bi koy gis du femme homme la. dañ koy gis muy dugg ko génn parfois ngeen ànd te for naa ci wéyu bay ñu ne kii la giwit mooy lesbienne mooy lesbienne rek. te kat. booy ànd ak li nga xam ne moom mooy lesbienne hmm. yow nga nekk góor dañ lay jiiñ kat borom ñaari tur yi hmm. yaa ci egg egguma ci ñu ne woon nag yow kuul gaan nga dama la prostituer yow dama koo put suwit waaw dama la put suwit hmm. ma ne ma ñëwal pour jox la ko pour nga fanaanoo ko moom kër koñ bu mu nekkoon dañ koo génnee ndax lesbienne bu mu nekkee ma ne woon naa ànd sama copine bi rek comme nu mu ko waxee ñu ñëw jox la ko. Ah, man mii ngay gis nii topp na ma côté bu nekk suñu arrêt koñ Kër Massar bu ma wàccee laaj inte inte 15 bi yëpp daal laajte na ko. ku ma xam laajte na ma. laajte na ma maree ma jum. Mhm. maree ma ne nii de du ca dal. Mhm. ah ku ne laajte na ma. Mhm. sama numéro lijjanti na ko. ma fay sama téléphone mu jóge nii mm-hmm. mënatumaa jot léegi nag damay koj mm-hmm. ñun fa ñuy liggéeyee lañ koy séen lesbien booy wët lesbienne bu mag jàpp ko giwin la français français mooy naan lesbienne giwin kii moo koy wax olof mooy wax giwin ok hmm, léegi qu'est-ce qu'on va faire euh, après demain bu soobee yàlla da fi ñëw hmm, su ko defee ñu gën a ñu gën a yaatal gën a mën a am temps pour waxtaana ah? d'accord xanaa bu ñuy ñëw paas beeg yooyu kay. non loolu amul problème. ko ko paas beeg yooyu kay. ansaar la ansaar la. seytaane ko poursuivre. danga ko poursuivre ah ah, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah, <laughs> ah Serigne na de. mën nañoo yeewee ko. nañoo yeewee ko. dil bi mën na du dara nag bu ko gisee leen. Mm-hmm. li nga baax rek sa si ñun rek ma lay séen ci kaw étage bi ñuy liggéey bu ñu fompee ba daj sama ñeenti ba daj ci moom rek man damay làqatu bañ mu piis ma moo tax ma ne yow balaa moo ñëw di la yàqal te ah, baax de moom xanaa moom merci ñu ngi dem merci dégg ku nekk sa yow lay wax ni yow billaahi yow ñooñu da nga xam wala xaw ma nee nañ ñoom mag ñoom ñoo bokkoon koñ d'ailleurs neen dañ koy romb fii muy dugg ci kër gi xamuñu ne sax sama jabar la neen dañ koy romb muy dugg ci kër gi rek voilà ñu am audace ñëw toog xam nga expliquer wax wax wax. sawar gis nga ñooñ bu leen gëm gis nga Sénégal fii moom ay ay yoo xamante ne xam nga ci lan la ñuy dox yàq sëyu jàmbur yi dugg ci kër yi di fen ci yooyu lañuy dox. lu mu tax sa xolal ngay am xel ñaar ci sa soxna yow sa soxna koo gis xam ni soxna la ku correct la loolu waroo ci am sax ay dut ay xel ñaar ak yooyu noonu ñu rek bu def problème la ak. non man moom xam naa sama jabar bu baax xam naa lu mu lu muy def ak lu mu deful kon xam naa bu baax que ni liñ koy waxal amul mais non ñooñu day li tax mu ñëwaat sama bopp sax tey lañu waxoon ne bu ñu wàccee dañ fiy ñëw. ñëw fan fi fii dañu ñame ñewat fi ma leen après ngeen ñewat ñu waxtaan te xamna dina ñëw parce que ñoo ñu capable lañ may ndoroon. ça va na def. ça va noo def. ça va ça va. ça va ça va bien. prenez place. ça va. ça va yéen ci jàmm. ñu si dañoo xaw a guddee sax. waaw ngeen dëkkee dañu doog a wàcc nii sax waaw doog a wàcc. doog a wàcc nii. Ah. ñu ne xaaral da nga waxoon nañ la ko ñu jaar ci rek. ok voilà ñoo la doon wax ñoo nekk mais nii rek lañ leen di bàyyee couple bi ngeen gis mu rafet ci dëkk bi rek ngeen jëm cee dugg pour yàq mais loolu du métier di wër di fen pour lan ni ngeen nar a dundee ah jabaru jaamur bi ngeen jël bu koo def lesbienne fan ngeen ko teg ah? fan ngeen ko teg. ok boy pël bu rafet. la de. ci loolee denk. ok kii fii la toog këram di sëy sëyam toppatoo jëkkëram toppatoo ay xaritu këram ngeen bëgg a ñëw fii di ko yàq. ki ngeen di wax lesbienne la wax dëgg fa yàlla suñu leen xoolee yéen ñetti ñii yéen ñaar laa koy jox yéen a gënoon nduróog ay góor yow xoolal li nga sol jàmput nga sol jigéen mosu koo sol. kii jël prix mel ni George Weah bi muy football. lesbienne bi xanaa yaa ko jox yaa ko eh, eh, jox eh. lesbienne. Hmm? seen mu daanoo. Hmm? Hmm? seen mu daanoo mais suñu daanoo mais lesbienne bi yaa ko jox. te yow moom xame naa la. séeréer napp nga ñu dem. balaa ngay fen fa nga jël sa xaalis dem salon ñu defar sa bopp maquillé la nga mel ni tan bombe bi ñu dugal salon yi. nga mandoroo ñu bari de. wër di fen comme mais wutit métier nga dem wut ci loo jàpp yéen xam nga lu ma leen def dama leen di ñaan rek yàlla suñu borom soppi leen duma leen dóor duma leen saaga te ki ngeen di wax lesbienne nii pourtant mooy borom kër gi fi lay sëy waaw mooy fi lay sëy te yéen a ngi yàq deram naan lesbienne la fu ngeen ko teg ci foog naa ak yaakaar naa te gis nga foog naa ak yaakaar naa moo indi ruus naa ak damaa am kersa te fi mu toll nii moo leen daal te man léegi li ma gën a métti ci dëkk bi dañuy jël baatu góor jigéen ay baatu lesbienne di ko utiliser di ko waxal ay nit yoo xamante ni si xamuñu ñoom dara boo dee góor boo setee civilisé bëgg sa bopp ñu ne góor jigéen nga soo dee jigéen am benn comportement boo ñu ne lesbienne la léegi fan la doomu aadama yi di muccee. fan. te baat yooyu noonu bu ngeen xamoon li ci nekk. ngeen jiñ seen morom julli nan ko góor jigen la wala les ben la bu ngeen ko tay utiliser jarul sax ngeen julli di wor ndax lu ngeen def ci lu baax ñom la ko yalla di joxat lool lan moko jar hein yo est ce que bëgg ko yaax sa der yow bëgguma ko de buzz rek ma jiddu ko dañu ne won bo waxe ñoo ñu rom ñaay tur ah, ñe di nga am buzz da ngay am buzz ok a ah, buzz nga doon yow ya, ndax bëgg ko yàq ya, sa der yow xawma sax kat mooy góor kan jigéen ak lesbian damay dégg wax ci rek dégg boo ko waxee da ngay sadik man moo tax may def yëfi yooyu pour ñu ne ma da ngaa sadik. da ngaa bëgg sadik hmm? sadik. waaw su ma nekkee foofu naandite lañ may wax su ma waxee wax yooyu moo ko jiñee kenn. sadik sadik lu moo la ci dugal. sadiguma. sadik nga kay. ba tax na ngeen bëgg a raxas seen der pour mën a sadik ngeen bëgg a yàq deru jàmm pour mu nekk lesbian sadik nga Hmm? est-ce que ku leen ko defoon di leen neex xam nga du leen neex. jigéen jigéen mooy bi gën doomu aadama nag bu gënee day maandu. ok merci mën ngeen dem. reer ban yow ñàkkoo fayda da nga fay ñemee xaar reer yow. yow waxuma ak yow rek yow kër gi yàqu ma merci rek nga mel yenu kat. waaye gëdd leen kër gi yow moom moo ñu waroon màtt tiwee ñu nii moom tiwee wuñu yow yow nag wax fa dëgg yàlla nag boo ñëwee ci kër jàmbur sax nga wàññi sa ton nuñ koy waxee. bes tonton wa yow tamit sak bi nga ah? xolal li nga bok sak la dañ koy gaddu ken du ko bok wax jep ya ko wax ah, wax jep ya ko wax yow lepp ak yow nañ demal sa yere yu bari yow mom nopi sa bop bi melni pajas ni way dugal ñu dem melni masaret ni xala yow ci ma dugal ko ñu defé ni ah way yow fer rek jarba da legi bu nga dalati ha ba kenam bu guddu bi ñi duñ sax rus xalaat yi ci dekk bi lañ nekk di wër di fer rek akama leen xamé madame xoolal madame Guèye bul jaaxle gis nga ñii dootoo leen gisaat ci kër gi waaw dootoo leen fi gisaat. jarul ngay jooy liñ lay waxal nii yëpp xam naa ne du dëgg man ak yow démb la tey soo ko ñëw xam naa bu baax li nga capable ak li nga capable kon jarul ngay jooy walla ngay am benn xalaat li ñu wax. ñoom ñoo wax lu dul dégg mais man bëgg naa la ba pare te dara du ko dindi d'accord d'accord